ci diggante bi Kaaw Cissé am fi ay ndog-ndog ci ay blessure ak jàppal bàyyil ba carrière am taxaw mu reprendre ay entraînement am war duggaat ci làmb ji yàlla dogal beneen ndog ñëwaat yaa ngi dégg ndogum yoon yoon téye ko bu ko yoon téye nag a ah, yàlla dagul dogal na ni at bàyyi nañ ko moo tax tey ñu seet si ko parce que nag olof mooy faral di wax rek bu yoon jeexul waxusul di jeex waaw mais balaa ma koy balaa ma koy nuyu maam ku ma nuyu fi ba pare copain kii moom fekkoon naa ko fi defe naa bi ñu ja bi bi ma fi mujjee ci loone ne sant weer wér tur bi Malick Niang Malick Niang ah. waaw ban la ba ca Yoff non bu dal kookaa la su Malick Niang bu Kaaw Cissé la bu Kaaw Cissé Kaaw si koor mais tey defe naa ne lii alhamdulilah ak cant la parce que weeru koor lañ ne seen xarit seen frère seen doomu ndey yàlla dogal mu woon ci loxoy yoon ba yoon libéré ko tey waaw looy wax ci loolu waaw ah, rek la ñuy wax alhamdulilah rabil alamin waaw parce que ñëwoon nga fi ñu def interview ñu waxtaan si kon li ma la waxoon rek loolu moo ñëwaat parce que waxoon naa la ko xëy ñu jékki-jékki rek jàpp la ñu xëy xëy rek ni ko ñibbil mi ngi nii toog bi muy bi ñu koy bàyyi mii ñibbi entraînement lañ ko fekk muy dem entraînement ñu xëy rek gàddi bu waxoon ni ko demal ñibbi atte wuñ ko defuñu ko dara xëy rek ñibbi moo pare dina ci leeral waaw mais man daal li may wax mooy ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout Babacar yow ñu ngi lay gërëm waaw parce que bi kaw wéree woo nañ la nga ñëw wax dëgg yàlla fay ñu la dara nga déplacé wu ñëw bi kaaw toll si tolof tolof yow la njëkk a gis yow yaa ñëw ba fii jël seen waa kër yëpp jël yaayam jël ay magam jël yu ñun ñu témoin kon loolu jàll message boobu noonu ñu mu jàlloon am na ci solo trop trop trop waaw kon nag instant bii nii def lu sant gërëm di sant nag ñi ngi sant ñëpp di ñaanal képp ki jëloon sa kurus di ñaanal Kaaw Cissé ñu ngi koy sant la gërëm parce que ñun boobu tooguñu wax nañ la ko tooguñu woon dem nañ ci autorité Dalifort yi xama ku mel ni monsieur le maire demoon nañ ci moom xama ak Alexis Camdel kooku tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax doomu nday bas mbaalo jàpp na ci bu baax a baax a baax waaw di wax daal kaw mi ngi nii daal alhamdulilah daal lañ ko li ñu bëgg daal Babacar man suñ ci jigee xama li tu di gars yi naan jamais deux ans trois mooy comme nga am na ñaari yoon ndog-ndog du troisième fois de incha allah bii baax moom yàlla na fi yem daal na loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla na fi yem carrément mu jeex waaw boo fi ñëwaat xam la lañ bëgg ñu ni combat kaaw daa am combat kaaw daan na loolu yàlla mën na ko yàlla moom dara tëwu ko mais li am solo rek mooy ah addina moom ni lay demee saa su nekk ñun li ñuy def dañ koy def parce que loolu moo ñu wax suñu mission la ñuy def ko yaakaar naa ne nit micro bi moomuñu ko sénégalais yi ñoo ko moom kon dafay jaaru ñu jox leen ko li ñu ci soxla nag mooy kuñ ko jox rek nga wax ci lu ñu mën a dégg ak luy jariñ sénégalais yi kaaw maa ngi lay balu ak baax a baax a a baax waaw ñu ngi lay ñu ngi lay baal ak si weeru koor gi di baalu ñëpp ak di nuyu ñëpp ginnaaw ba ñu sant yàlla julli sente bi ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal waa sénégal yëpp yàlla na fi jàmmam di ñaanal waa dalifoor di ñaanal ñu tëdd si lalu hôpital yàlla may leen wér gi yaram ñu génn àdduna di leen ñaanal yàlla yàlla na seen seen kaw ñu caag teel ginnaaw di leen ñaanal yàlla yàlla na leen natt bi seen njaboot waaw. Euh, kaaw comme ni ko sa xarit bi waxee ah Malick Niang man bi ma fii mujjee ñëw boobu dañ la arrêté woon boobu yaa ngi ci loxoy yoon ma ñëw fii seet si waa kër gi seet si famille bi euh, ñoom ñu waxoon ni ñu la jàppee ci arrêt bi lañ la fekk jàpp la yóbbu la gendarmerie après par la suite ci noonu nga jaare ba dem yaakaar naa kaso ba euh, ma bëggoon xam nag lu waraloon jàpp bi ak itam. bi ñu la jàppee est-ce que atte nañ la parce que moom ne na dañu xëy bàyyi la et maanaam ñaata temps nga def foofu ci kaso bi ñaata weer wala ñaataat wala nangam. waaw bi màggal Touba bi di jëm si 2020 bi. màggal 2020. waaw lañu doon dem màggali Touba léegi dañu taxawee si arrêt bi rek am gars yi ñëw rek song nañu c'est la police dama def ne saag bu ma yor lañu soupçonné quoi pour xool ko léegi ñu ne nañ dem may leen non mënu ma dem ñu nekk foofu di jàppanteeg ñoom di xëccoo sama yëre yi lépp xotteeku. léegi ci lañ demee ba gendarmerie ba gaa nañ daa am ñu def ay plainte nee ñu yow yaa leen agressé xamal mu la te fu may liggéey ak fu problème yi amee dafa jegante ko fu may sécurité par guddi di monter ak fi problème yi amee dafa jegante te problème bi yëg naa ko bu yàgg yàgg nañ ma ko wax. maanaam agression bi fay am. waaw yëg naa ko léegi ki ko doon def nag maa moom dañoo ndróo dañoo tolloo taay tolloo maas tolloo lépp yaa ngi dégg mais yàgg nañ ma ko ëpp na ay un an ak lu dem. mais comme man problème bi sama yoon new si xam nga man dama ne sama yoon newu si quoi ndax fii nii police Pikine mu ngi fii jël siiw xam na lépp ñu demee bu doon loolu la police Pikine ñoo may njëkk jàpp ñoom ñoo may njëkk arrêté police bu naaw raay tamit noonu police noonu. est-ce que ci Pikine la bokk yaraax la bokk. fii si Pikine la bokk waaw ñun suñu ñëpp waa Pikine lañ waaw te police Pikine bu loolu am na bala ñoom ñu xam si dara mais ñoom xam nañ nu mu demee moo tax ñoom arrêté wuñ ma. léegi police bii nii maris bii nii police bu bees la ñu ngi door a ubbi léegi foog ñu def benn affaire boo xam ne ñëpp dañ leen di coow léegi ñoom ñu ne daa am ñu ñëw wax leen Kaaw Si mooy agressé fii nii si arrêt bi te arrêt bi fii nii gis nga nu mel suñu diggante nu mu nu mu jegante xam nga loolu xel nangu ko ba pare man maris laay entraîné sax ngoon fi police maris bi nekk gendarmerie bu bees bi ñun fa lañu doon entraîné ba ñu ñëwee def fa gendarmerie bi ñu demaat si terrain bi si côté bi di fa entraîné bañ may arrêté lan moo tax ñëwuñu foofu arrêté ma bàyyi ba événement bi am ba mu ñëw ba jege si ba ñu xam ne ñëpp taxaw nañu ñu door a ñëw song ma noonu xam nga man bu ñëwoon fii sax ne ma Kaaw Seye dañ la soxla ma doxal sam bopp dem soriwul police maris baa ngi nii tali bi ngay jéggi dugg bu ñëwoon bala ñu woo ma téléphone ñu ne ma dañ la soxla kenn du ma fa jiitu ndax wóolu naa sam bopp mais bañ ma arrêté tamit wax naa leen ko neena leen lii nii yàgg nañ ma ko mot na ay deux ans ñu ngi ma koy wax. mais leen dafa am kuñ ma jaawle mu ngi tudd diw ak diw tudd diw dëkk fii ni kon la jaawleel xam nga ko xam nga ne moo doon def tooxi doone waaw loolu xam naa ko tamit ñoom tamit est-ce ko kon seen liggéey lañ doon def parce que tamit police yaakaar na saa bu jógee bay ak jàppi nit am na fu koy teg du ko teg ci rek lu ko neex yaakaar naa loolu de moo moo am de wala waaw xam nga ñoom dañ leen indiqué jox leen ay information information yooyu am man duma ko am waaw information yi man maa leen ko njëkku jot foofu ndax man problème bi yàgg nañ ma ko ndax man fa laay liggéey fu may liggéey ak problème yi di am sorantewul man toog naa am na benn jour maa ngi toog sama gars yi ma won leen vidéo may leen kii nii dañ may jaaw jaawaleeg moom rek avant problème bi di am. yow boobu mënoo ko doon teel a dem jóg maanaam li ñu naan fagaru teel a jóg wane ji mbir yi maanaam balaa ëllëg leneen di la ci fekk comme li la ci fekk nii. non xam nga loo xam ne ñu ngi koy wax lu mot ay deux ans. foog moom dina yegg foofu. yow da ba pare waaw xam nga diggante bi moo jege jege boo xam ne. yow doo yaakaar loolu yow dinañ dem ba arrêté la si man mosuma woon foog ni problème bi dinañ dem ba arrêté ma si ndax am na ñoo xam ne ñu bëri xam nañ nu mu demee mais am na ñoo xam ne xamuñu nu mu demee loolay problème bi ma dëkkal xam nañ nu mu demee mais ñu fi dëkkul nag ñoom xamuñu nu mu demee mais après bañ demee ba ci biir a biir la ci lañ xam ni lépp li ma doon wax lépp dëgg la man maa nekk ci ba waaw biñ ma jàppee ba defeere ma waaw léegi bañ demee ba am 7 mois ñu arrêté ko moom waaw ki doon def loolu ñu arrêté ko bañ ko indee juge bi woo ma moo ko problème bi nu mu demee A ba mu woo ko moom it moom mu wax ko problème bi nu mu demee A ba Z moo leen kaaw si sa miin yi yoonam newul si problème bi problème bi man maa ko def maa moom dañoo ndroo dañoo tolloo suñu maas yi lépp benn la. ñoo waaye da xam. non xam naa ko nii rek xam ñu ndaw yooyu ndax ñoo doon bëree ndoo mbapat. xam nga ko kaaw. waaw xam ñu ndaw rek. xam nga nekkul comme xam boo xam ne maa moom dañuy fréquenté. waaw du ngeen fréquenté mais xam nga ne diw mi diw la tudd. waaw xam naa dëkk fii voilà xam naa ne diw la tudd. xam naa ne Pikine la dëkk. xam nga Pikine ak Dalifort fii soriwul benn la yaa ngi dégg mais problème bi nu mu ñëwee man comme ay gént sama kaw. léegi gis bi woo la woo ko moom mu as bi ne la. waaw gis bi njëkk na ma woo ma wax ko problème bi nu mu demee ba mu jeex tàkk mu ne ma gaw ma foog moom mu toog nga toog ma ne ko amul problème ma ne ko comme lool ngeen kii waaw waaw amul benn problème moom it après ñu woo ko moom it mu ñëw wax leen problème bi comme li ma fa wax moom tamit loolu la fa wax moo leen Kaaw Cissé lu mu leen wax dëgg la man bañ ko arrêté chaque jour nit wax ma ko mais comme arrêté nañ man muy weeru koor daaw mu ne leen si weeru koor lañ ne ku ma tegal kaamil ma waat problème bi man mii maa ko def sama problème la yoonam néew si waaw mu ne leen kii nii yoonam néew si dama bëgg ngeen bàyyi ko mu ñibbi tey tey tey ba mu defee loolu am na un an après man ñu door ma bàyyi waaw Euh, am na un ñu door la libeere mais loolu lépp li ma si jàngate pour man man laa wax de dama jàpp ne yoon mooy doxal te yoon itam ni muy doxale mooy il faut mu am lu leer ba mu leer ko ne lii c'est clair mu doog a mën a def li muy def yaakaar naa loolu noonu la mbir war a demee de wala. noonu la mën a demee bañu ma loolu mais ba mu leeree dafa yàgg quoi. ba ma am dañ la yéex a bàyyi. dañ ma yéex a bàyyi trop trop trop trop. ñu bëri ñaata temps def ci kaso ci kaso bi. def naa fa deux ans six mois waaw. deux ans six mois si problème yoo xam ne kenn xamul problème mu lan la problème boo xam ne ba mu leeree 2021 la problème bi leer ñu téema dëpp ba 2023 fekk may entraînement xëy xëy ñëw na ma bàyyi nañ la ñu tëdd attiwuñ ma defuñu ma dara loolu day ñaawlu loolu dama koy ñaawlu dafa métti trop trop trop dëkk bi amul yoon quoi loolu nga yaakaar amul lu tax ma ne amul yoon yow mënoo ma arrêté ba pare ba defeeram laaj nga ma woo nga ma enquête ma wax la problème bi mu demee nga ne foog ma woo kii kii tax ñu arrêté la diñ la jaawule loolu d'accord naa mais boo woowee waa yow moom mu ñëw toog wax la li mu demee lépp li ma wax moom mu wax lool foofu lu des. yow ci sa xalaat di li nga jàpp yow kaaw en tant que kaaw li li ngay gis mooy ñu bàyyi la. waaw dañ ma waroon bàyyi di boobu ñu téye ma waat ba mu motaat un attiwuñ ma defuñu ma dara. fajar bi xam nga ñun dañuy dem entraînement ji dañuy may ñuy entraîné ba ñuy entraîné ba bay waaj a pare benn garde ñëw woo mu laaj ma kañ nga fi ñëw ma wax ko mu ne ma bàyyi nañ la jëla sa bagage nga nit nii si toll. yaa ngi woon fan ah, boobu maa ngi 100 xam na ñun dañu njëkk yóbbu Cap Manuel jamonoy Covid bi jëlee ñu Cap Manuel yóbbu ñu Sébi Wutaan jëlee ñu Sébi Wutaan doon ñu indi fële 100 mètres waaw. trois kaso yëpp. da ngay jóge fële dañ lay quarantaine kii nii Cap Manuel boo fa jógee waaw ñu yóbbaat la Sébikotane nga def fa quinze jours après ñu door la indi 100 mètres quarantaine la war. dana am koy koy interpellé président bi jiite réew mi ngay interpellé pour que dossier yi ñu di ko gaawal walla loo ko bëgg a wax moom président Macky Sall. non man Macky Sall su ma amoon lu ma koy wax comme moom am na benn am na benn wax boo xam ne daf ko waxoon man daf ma tuuse boobu maa ngi ci biir prison bi mu ne am na ñoo xam ne su leen naree jàpp dëkk bi tàkk dam leen di bàyyi wax boobu dafa ma tuuse woon ci biir waaw tuuse na ma trop trop ba pare am na juge bu ñuy wax Souleymane Téliko moom it waxoon na justice bi amul indépendance te loolu tamit xam nga dëkk bu amee problème rek si loolu la gën a gaawee justice bi nañu yemale ñëpp ku nekk li nga moom ak sa cër ñu jox la ko tooñ bu amee tey jii juge bi man fan fan laa doon d'accord dëkk bi dëkku yoon la ñu woo plaignant yi ñu toog ñu woo policier yi ñu toog ñu leen yéen kii nii dangeen ko tooñ ndax téye nañ ko fi ñaari at ak juróom benn weer yéen yéen a ko tooñ bu leen di jéggal mu jéggal leen buy fayu mu fayu police yi est-ce que du dañ leen a yónnee ñoom ñoom est-ce que du procureur moo leen di yebal rek wala kii def poursuite moo leen di yebal pour ñu dem jàpp diw rek pour loolu rek lañ ci def pare ci mais nit balaa nga koy jàpp ki la jàpp lu mais nit balaa nga koy jàpp foog nga am lu leer nañ ñi si moom Sénégal ay problème dañuy xëy xëy rek jàpp nit rek jàpp rek defeere sànni dugal nga toog fa ay trois ans 4 ans di jékki saay ne la ñibbil si zéro ñibbil si zéro duñ la jox fukki dërëm booy paase. lii lañ lay jox booy ñibbi lii lii papier libérable yaa ngi gis lii ni mun nañ la fa téye 7 ans 8 ans am na benn booy 5 ans lañ ko fa téye condamné ko quinze jours léegi moom 4 ans 4 ans 4 mois 15 jours yëpp moom da ko perte si zéro. xam nga loolu métti na kenn joxu ko dërëm joxuñu ko dara gis naa kuñ téye sept ans ne ko yoon toppeewu dara man yàlla def na teel nañ ma bàyyi sax maa ngi sant yàlla baax a baax mais am na ko fa def huit ans ñu xëy xëy tamit ne ko ñibbil si zéro joxuñu ko un franc kooku xoolal li nga koy yàqal nu mu bëri man tey jii ku ma fekk ñu naan Kaaw Sène mu agressé téléphone lan la may wax. problème bi problème téléphone. problème mu téléphone la. mais boobu tamit dafa mel ni bëri woon na agression jamono jooju de. ba tey ba suba agression bi jeexu fa. jeexu fa non non. fi dëkk tamit amu ngeen euh, maanaam yéen seen yi dëkk ci côté côté bii nga xam ne des fois mbir mi comme liñ naan euh, ay du yem ci boppu borom amu ngeen maanaam mënu ngeen a jóg ngeen jël seen ay décision ferme lëkkaloog police ak gendarmerie ngir xeex agression boobu mu jóge ci arrêt bi définitivement wala. non ñu ngi si doon dox ay jéego yu am solo mais jamono yooyu après man ci laa am problème gars yi nag bàyyiwaat affaire yi lépp. ndax après nee ñu wóorul ndax mbirum yoon la waaw mbirum yoon dafa sew quoi. Mhm. mais bi nga nekkee ci prison bi euh, maanaam euh, yow no affaire bi noo ko doon dundee nga yow comme li nga jàpp ne yow defoo dañu la sosal ñu tëj la ay deux ans yu tegal loolu noo ko maanaam loolu daan yëg ci sa xol. waa dama daf ma métti trop trop trop mais après damay sant yàlla baax a baax a baax ndax man ba ma ñëwee détenu yi si boppam ñoo ma njëkk setal ne ma kaaw si problème bi doo si dara. ñu ngi lay ñaanal nga ñibbi chaque jour dañ may ñaanal suba ngoon ne ma mbër yow kenn du ate àtte da ngay xëy xëy ñu ne la ñibbil ni lañ ma koy waxee chaque jour saa yi ñu xëyee noonu lañ may wax mbër yow amal confiance yow yow da ngay xëy ñu la ñibbil demal kenn du la àtte ndax problème bi ñëpp xam nañ ni mu demee Sénégalais yëpp gis nañ xam nañ ni mu demee justice moo deful liggéeyam chaque jour lii la ñuy dëkkal di ma ko sama nopp muy suba ngoon léeg-léeg ma ne man war nañ ma àtte ñu ne ma non yow doo dalal sa yow li nga am su ma ko amoon kenn du ko waxati yow duñ la aate da ngay ñibbi léegi léegi waaw ba may am un mois ba nu may ñibbee nii chaque jour loolu lañ may wax ba ni ba nuñ may nee jëlal say bagage ñibbi. bi ngay ñibbi yi. waaw ba may ñibbi mu ngi ma fekk entraînement ay 7 di matin waaw ñu ngi si terrain bi entrement man ak sam benn grand ni dof di ko ñaanal. waaw ñooy ànd di entraîner chaque matin ak gars yi ñoom baay Mor Aba Diédiou bu Fass sama entraîneur am nga boobu ñu ngi entrement di liggéey tànk ba mu yàgg benn garde bu ñuy wax Chef Sonko. sama gaañ la mu woo ma mu ne ma kañ nga fi ñëw ma ne ko 2020 laa fi ñëw mu laaj ma jour bi ma wax ko mune ma jëla sa bagage dañ la bàyyi fekk jamono boobu tamit nit dof mu ma doon wax yow dañ la war a bàyyi billaahi di ma ñaanal ma ne ko non xam naa yàggatul dara mais yow it maa ngi lay ñaanal yàlla nga ñibbi te jour mooy ñibbi maa moom ñoo nekk di entraînement mu ne ma ci lañ ma ci lañ ma nee bàyyi nañ la kaay ñibbi ma ne ko mbër ñaanal ma mu ne ma yàlla na la jik moom it maa ngi koy ñaanal xam nga natt bi tegeeku si koom quoi mu nekk grand bu baax ku yaru ku kuul waaw. nit dof waaw nit dof rappeur Mortala Gueye waaw. ñu yëpp di la ñaanal. waaw foofu ñu nekk. di ñaanal détenu yi yëpp ndax sonn nañ sama bagage yi trop trop trop kaso bi yëpp sama problème lañ jëloon def ko seen problème barki Serigne Touba kaso bi yëpp sama problème lañ jël def ko seen problème dañuy xëy suba ngoon di dox si sama problème moo tax awma seen fay mënuma leen fay dara dara cinquante sambur yëpp sambur une ba sambur cinquante aw ma seen fay muy chef de chambre yeeg homme de chambre yi man fu ma neex laay dugg si kaso bi kan ma fenn néegu ma neex damay dugg fu ma neex damay toog tëdd muy coob yi bu ñëwee lekk xam nga benn booy bu ñuy wax maam Cheikh moo doon servi coob yi bu añi ñëwee danaan bii mbool bi boolu mbër la day ut ut ngan di bool tegal ma noonu defaral ma si bu bëri ne ma lekkal pour boo génnee nga am komba cere tamit noonu gars dañ may defaral lu bëri di ma jox meew man voilà man namu moon dara si biir lu ma joxoñ gars yi ne ma am daggal moo tax aw ma seen fay quoi di leen ñaanal xam nga natt bi gaaw a teggee ko bu baax a baax a baax a baax a baax waaw. léegi nag ñu jeexal ak yow ci wàllum làmb ji yaa ngi woon ci kaso bi génn nga ak jàmm yàlla bu bu loolu amati waaye tamit ñi ne ci biir yàlla nañu génn ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal tey làmb no foo ci toll fi mu nekk nii yaa ngi doon entraîné ci biir est-ce que kaaw am na doole joo xam ne tey bu ko joxoon avance ne ko après Korité combat dina bëre. bien sûr instant yi maa ngi doon entraîné si biir matin soir léegi mais entrement ci biir boobu ak entrement fii nii du benn day ute day am changement dina am différence ndax fële danga nekk ci temps wu jàmbur heure u jàmbur nga nekk tamit mais fii nii yow yaa moom sa bopp da nga libre di nga entraîné noo bëgg fële dangay ngay rek ba génn léegi fu mu ne nii nag ñu ngi entraîné normal muy matin muy soir muy midi muy ngoon ñu ngi entraîné. di xaar combat ñëw ñu dem bëre ji xaar combat ñëw nga dem bëre. waaw combat laay xaar fu mu ne nii waaw. sama yaram xel ci ku mu ne. sama xel mu ngi si mbër yëpp. comme lu ma waxoon keroog laay wax quoi instant yi dama bees tàkk-tàkk sama combat yi ma jot a bëre lépp mu ngi sama ginnaaw fàtte naa ko léegi dama mel ni mbër bu bees buy waaj a ñëw arène di door a defar sama licence voilà di war a bëre premier combat moo tax moo tax boobaa doo laaj kenn hmm. da ngay xaar non ah, am na ñoo fi jot a daan yow ñaata combat def ci arène bi. dix combat laa bëri. ñaata victoire huit la am ak huit victoire mais fu mu ne nii xam nga toogaay bi dafa xaw a yàgg léegi da ngay xaar kan kan ku la soxla yow waaw. Ah, mbër xam nga mbër yi boo nee jox leen ma diw rek ñu ne non kii préparé na ma xam nga woo na ñoom papa njool gars yi woote Guinée xam nga affaire yooyu ay petit blanc woote na Guinée xam nga moo tax instant yi bëgguma laaj benn mbër damay toog rek di xaar kan lañ may proposé waaw. mais bi nga ne ba combat ah, combat Balla Gaye booy Niang fu mu la fekk combat Sa Thiès ak Reug Reug fu la fekk. ak combat surtout ci kaso bi la la fekk. waaw combat yooyu yëpp ci biir la ma fekk combat Sa Thiès kii nii bi moo ma fekk fii nii ci biti waaw ba mu desee ay trois jours yooyu laa génn waaw. combat boobu noo ko gisoo. waaw combat nekkoon na combat bu neex ba ma génnee gars yi ñu ma si doon laaj jour ba ma ñëwee stade. maa leen man bu ma indi woon Sa dama koy xeexloo mais rëg-rëg dama ko bu maa ko yor tey dama koy bëreloo te defe naa ni combat bi tamit la demee Sa Thiès ñëwee xeex la indi rëg-rëg ñëw indi bëre waaw yàlla yàlla dogal Sa am ndam di ko ñaanal ndam li jikko di encouragé rëg-rëg tamit di ko ñaanal bu amee yeneen combat yàlla defaral ko jàmm esporo rek quoi xam nga Sénégal moom benn bopp la kenn mënu ko xar na ñëpp doon benn rek bu jeexee rek day daal di jeex xam nga mu gën a rafet quoi mun naa waaw ku mel ne Siteu sest yi nga gis muy fan yi sest yi muy yàgg na koy def sax mais bari ki dem ba ci mujjaat génnewaat ay millions yu bari jëndaat koy moto jox ko xale yi jàmm gën yi loolu loo siy wax. loolu dafa rafet dafa nice trop ndax banlieue bi fii nii dafa dëgër quoi foog ñu jàppale jeunesse bi moom it def na benn affaire bu rafet ba ma amee problème tamit wax na si ñaanal na ma bombardier tamit xam nga moom it def na lu rafet toog naa fële di ko seetaan ba muy signature ak am ma seen wax na si. waaw bébé Saloum tamit noonu wax na si ba mu génnee ak bébé Diène léegi loolu moo tax geste bu nice la def di ko ñaanal baax a baax mu am jàmm ndax ndaw yi moom liggéey lañ bëgg quoi ndaw yi bu ñu amee liggéey rek duñ tal yenn yi duñ tal yenn coow yi histoire du am taal puno du am guerre du am dara du am ndaw ñi moom utal leen liggéey rek boobaa du am jot boobu koo gis muy taal puno rek xam nga jot la am quoi waaw Kaaw Gourdin mu fi. waaw temps yi lakkale na de. waaw noonu la tur bee diis quoi turu kaw moom ku ko yor rek xam nga. moom yow la tuddee euh, maanaam sa tur la jël. non non suñ tur yi ñoo daje quoi xam nga fii Kaaw yi daf fi bëri kër bii rek am na Kaaw suñu koñ fii ñun amoon na ñett Kaaw moo tax dañuy wax Kaaw yaay Siise Kaaw Kumba Njaay xam nga dañuy dañuy kii quoi Kaaw yi kaw yi waaw. taxawaayam. waaw dégg Sa Thiès bu daw yaram ma xale bu am waaw am na ful am na fayda am na jëm ndax ñeme na entraînement trop trop nangu na entraîné moo tax boo gisee nii di nga ko xeeb jëmm ji mais force bi mu ngi si biir quoi waaw. am na solo kaw yow. waaw maa leen gën kontaan di ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp di sant ñëpp ñoom Alex Kambel xam nga Bas Mbaalo Moutar Malick xam nga Adama Sakho Kaw Cissé 1 2 Thiatou Kayre ñoom it sonn nañ si trop booy ma génnee seetaan na yenn vidéo yi xam nga mais lenn laay wax sama carte d'identité dafa am problème ndax bu ñu ma arrêté ñoom ñoo jëloon sama carte d'identité ba ma génnee gendarmerie Maris ma dellu fa may leen sama carte d'identité bañ ma arrêté fii la carte d'identité bi newoon gars yi xool kees bi ñu ne ma newu fi ma dem police pikin déclaré certificat de perte jox ma ko ma dem état civil bu Yaraax bi pour récupérer sama extrait ñu ne ma numéro bi baaxatul léegi fu mu ne nii aw ma këyit non non zéro laay doxee fu mu ne nii at étranger la ndax ma man dama fonk këyit bañ may jàpp maa ngi samay këyit sama carte lépp mais ñoom bu ñu ma arrêté ba pare waroon sama carte d'identité yóbbu ko suñu kër ma dénkaane ko mais ba nii amatuma kayit fu mu ne nii zéro laay doxee waaw. kon gars yi dégg ngeen li Kaaw jot a wax daw na yarama mais nag la vie est comme ça waaye li ñu ñaan rek mooy que ni ah ñi euh, euh, maanaam nit ki moom bu fekkente ne def na dara rek ah bañ arrêté ko la ñuy ñaan mooy ñu jugé ko rek mu xam moom fa mu féete ak lu mu def parce que itam loolu dina gën a yombal parce que kaso yi yi gën a xam ne ne neexul metti na te yaakaar naa kaso kenn du ko yéene kenn mais ñu ngi nii encore une fois ñu ne ci kaso yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mais tamit man dem ba camp nuy fa sama benn jigéen ah bu ñuy wax Binta Dia moom tamit nekk garde pénitentiaire maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni yàlla nañu yàlla defal jàmm barke yonent sama waa ji di courage